ngir waajal màggal gi waajtaay nag tey mu bokk ci ñi nga xamante si nii dañoo baaxoo ànd ak ñoom waajtaay màggal gi muy daayira yi nga xamante si nii ñoom ñooy lëkkaloo daayira Muxaddamatul Xidma ngir ànd ak ñoom liggéey bi ñu ñëw nag def ay réunion ay taxaw seetlu yoo xamante si nii ngir xool lu jagoon xool nan nañu war a mën a gën a fexe ba euh, taalibe yi ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ku war a julli julli ku war a jàng jàng ku war siyaare siyaare fu nit war a aw fu mu mën doon dara bañ ko a gàllankoor loolu yi mooy taxawaayu daayira Muxaddamatul Xidma muy liggéey bu nag ñu jël ko ci bépp anam bu mu mën doon rek buñ xalaat ne rek euh, barab bi laaj na ko ñu taxaw ci taxawaay yoo xamante seen taxawaay yu mucc ayib la kon a daayira Muxaddamatul Xidma moom mooy coordonnateur bi nga xamante si moom mooy coordonné mboolem ñi nga xamante si nii dañuy ñëw ànd ak ñoom ci biir liggéey bi te di jàppale daayira Muxaddamatul Xidma loolu moo newoon saw jataayu tay bi eh, ñi ngi ko àndal nag ci ay daayira bari nañ daayira yi rek mi ngi toll ci fukki daayira ak ñett ñu bàyyi ko ci gox yu fasantikoo ñi Dakar ñi Thiès ñii Louga ñii Touba Ngoy kon bëri nañ eh, loolu nag dafay nekk liggéey boo xamante si ni liggéey bu yaatu yaatu la mu aajo saytu ndax ay nit yoo xamante si ni dañoo jugee ci ay barab yu bokkul wala ay jëwriñ yoo xamante si nii euh, suñu borom def na ci tawféex ay daayira la yu bàyyi yoo xamante si nii fañ daan jóge bokkuñ fi ñu jugee kon loolu laajal na ak nos ba yéene ji ak bëgg gi ak euh, li ñuy liggéey ci barab bi lépp nekk benn loolu rek moom moo tax a jóg réunion bi kon daayira Moukhaddamatoul Khidma daal la cay war a tefam mooy saytu barab bi ci bépp anam bu mën a doon ci waajal màggal gi def ko ni nga xamante si noonu ko sañ bi diglee ba lenn du ci am rëq-rëq ci barab bi ci wàllu julli ci wàllu siyaar ci wàllu euh, wér-gu-yaram ci lu mu mën a doon ci barab bi rek ñu fexe ba euh, saytu loolu ba mel ni mu war a leneen loo xamante si ni tamit dafa jéggi daay dama xadama xidma ña ngi ciy lëkkaloo mboolem ñi nga xamante si ni ñoom la ñoo ànd ak ñoom màggal gi muy waa sappoor wala waa médecine wala waa police wala waa gendarmerie ku mën a doon rek te màggal gi tax laa jóg te muy lu mu di ñàkk ca barab bi danañ jokkoo ak yow ba lay sa wàll ci liggéey bi ñu fexe ba nga def ko kon nag jëmmi liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma loolu ma waral tey réunion bi ngir mën a jàngat liggéeyu daaw yi ginnaaw bu ñu ko defee woon évaluer woon ko ba noppi ñu gën a taxawaat jàngataat jafe-jafe yi jàngataat lan mooy saafara tamit jafe-jafe yi ku ci nekk wax tamit lan mooy solution bi nga xamante ne ni moom moo war a gën a mën a baaxal liggéey bi kon loolu laal mooy taxawaat taxawaay daayira Moukhaddamatoul Khidma taxoon tey suñu réunion bi tey ñu defee ko fii tey ci jumaa ji euh, xañ na bu jëwri ni ñëwee dinañ gën a mën a mottali li des ci liggéey bi kon ñu ngi yemale foofu suñuy kàddu xanaa di soññee rek mboolem li nga xamante si nii rek mooy worma ak cet di nga xamante si moo làmboo barab bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te sëñ bi nam ko doon fàttalikoo rek mooy di ni ko yuuxu yi ak coow li ci lenn loo xamante si ni amul njariñ kon ñu ngi fàttali ñëpp di ñaanal ñëpp màggalub jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo leen di nuyu te di leen ziare bu baax a baax di jiital ci ñëw beeg ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kulu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér barki Cheikhul Khadim noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Modou Mbenda Fall moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér barki Cheikhul Khadim maa ngi tudd Khadim seen di membre ci daayira Wakana Haqqan Facebook bokk communication tey nag suñu teewaay fii ku ko gis rek sa xel day dem ci liggéeyu Seexul Xadim te mooy daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lu jëm ci jumaa ji ak lu ko wër eh, ci fànn yëpp nag rawatina nag ci bés bu tedd bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy màggal ak Tuuba loolu moo sabab tey ñu woo daayira yi nga xam ne dañ koy bokk ak ñoom ci liggéey boobu noonu muy fukki daayira ak ñett ñu war a ànd ak ñoom liggéey boobu di liggéey bu tedd bu màgg kenn ku nekk am ci pàcc boo xam ne danañ la ko jox ngir nga doxal ko waaw ah, nun nag bokk na ci lañ fay liñ ciy saytu mooy lépp lu yelloowul ak jumaa ji li ko wër ci wàllum njaay am na foo xam ne fa la jaaykat yi war a yem am na foo xam ne itam ñi nga xam ne xëy na dañuy yelwaan foofu la ñu war a yem terewuñ kenn nag mu jaay waaye xëy na mbir yi day toll foo xam ne am lenn lu nekk am na fu muy tàmbalee am fu mu yem loolu nag bi ko waa Muxaddamatul Xidma xamee bu màggal gi jubsee kon day mel ni nit ñi dañuy bëri kon day mel ni faaw rek am ñoo xam ne dañuy saytu wàll googu ñu dénkoon ñu nag wàll googu ñu di ko saytu nga xam ne danañu fexe ba euh, lépp lu yellawul ak jumaa ji euh, mu sori ko képp koo xam ne da ngaa ñëw bëgg ziar ñu fexe ba nga ziar ci jàmm ak salaam ndax képp kuy ñëw ci dëkk bi rek ci bés boobu xam nañ ne li la yëkkati rek mooy euh, lu baax kon nag la ca gën mooy ñu fexe ba kenn ku nekk rek boo ñëwee la nga bëgg te muy lu baax ñu fexe ba na ko amee ba nga xam ne maanaam ñëpp danañu am liñ bëgg te xat du damm te kenn ku nekk xam na ne barab bi barab bu tedd la barab bu màgg la. kon ku fi ñëw ku nekk rek am na noo war a mel kon itam yaakaar naa ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg ñu koy saytu du seenum njàmbaar waaye ndimbal ak sëriñ bi la kon ndimbal loolu nga xam ne sëriñ bi dimbali nañu ko ñu bokk ci ñi nga xam ne xëy na sëriñ bi teg nañu fi ñu bokk ci ñi xam ne dañuy liggéey ci jumaa ji di saytu mboolem loo xam ne yelloowul ak jumaa ji maanaam ngir ñu sorale ko ko kon yaakaar naa ak cant war nañu bu baax a baax waaye nag du caagen ni itam ki nga xam ne dafa ñëw ngir siyaar si dañ koy wax ni fii ñoo la fi gën a sañ wala fii ñoo fi ëpp lii wala déedéet kon daal noo ngi woo ñëpp ci ak dal ngir képp koo xam ne yaa ngi ñëw gan nga te gan ñi ganale rek moo ca war kon la jiitu ci liggéey bi rek mooy yar ak i teggin te it loolu yebe waa mu xidma képp koo xam ne dañuy teg ci teere bi danañ la wax lii moo bokk ci liggéey bi fii ngeen ci yem fii ngeen di tàmbalee fii ngeen di yem kon itam membre yi nga xam ne ñoo bokk ci liggéey boobu dañ leen di wax rek ñu gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax liggéey bi gën a sàmmantewaat ak sart yi bu baax a baax képp koo xam ne it yaa ngi màggal si nga gën a góorlu bu baax a baax euh, ci col geek melokaan week doxin week lépp rek ngir kat paas jóge fu sori dang-dangi ba yegg si ci coono yooyu te jëlewoo fi dara itam ci lu baax loolu itam ëpp naa kon képp koo xam ne yaa ngi ñëw war nga mën a ànd ak pas-pas bu sell ànd ak yéene ju dëgër ngir boo ñëwee li nga bëgg lépp nga mën kaa am kenam gën a rafete kon daal noo ngi ñaanal mboolem koo xam ne yaa ngi màggal si incha allah nga ñëw ak jàmm te delloo ak jàmm ñu màggal ay jun ay ati at barke Cheikhul Khadim di ñaanal xalifa général kullu murit sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee xalifa euh, général bu Baye Fall sëñ Amdi Modou Mbend Fall ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah haal ñu ngi ziar ñëpp njiital ci ziar beeg ñaan yi sëñ Muntaxa Mbàkke kii fii taxawee axmul taxawaayu axmul xadim te ko sëkk ñu ñaan yàlla gën koo dëgëral lool mu yàgg fi yàggu kéemaan ay sëmbam yëpp yegg ànd koog moom te daje ci ak ngërëmul axmul xadim waaw tey ji ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet la mu xaddamatul xidma woo mboole seen ñi nga xam ne ñooy taxawee liggéeyu màggalu Tuuba ngir ñu jàngat liggéeyu daaw bi am ay xalaat ci liggéeyu ren bii xëy na xalaat tub liggéeyu daaw bi waaw waaye liggéey bi ren bi dana yaatu be kon ab tënk du ko mën a maye waaye bu ma tënkee ci mboole seen góor ñeek jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy jóge koor ci fukki daayira ak ñett 1404 personnes la junni nit ak ñeenti téeméer ak ñeent junni nit ak ñeenti téeméer ak ñeent yooyu ñoo liggéey daaw ci mboole seen commission yi nga xam ne ñoom ñoo seq liggéey bi boo tàmbalee ci rang yi teg ci sécurité teg ci hygiène teg ci tere yi teg ci parfum cuuraay ak lépp lu di niru ak liggéeyub ndox ndox mi ak liggéeyub barab bu mag ba ak barab yépp ñu sant yàlla bu baax ndax damay wax nii loolu moom pexe tëbbiwu ci bëggug sëriñ Tuubaa moo la seen nag ñi ñëw mbaa ñi ci bokk xam nañ xel ne ak Modou leen tànnal boppam am nañ tamit yéenay saa yu ñu rotee fii ci jumaa ji lépp lu buñ ko yëddoo mu nekk loo xam day jagal màggal gi dañ ci def lu ñu mën ak lu ñu mënut lu ñu mën ak lu ñu mënut ci diggante góor aku jigéen ànd ko tagit ci nosewu moo tax ñu daje nii ngir lépp loo xam ne dañ koy simb ñu xool ko ba mu nekk loo xam ne buñ ko àndee bu sottee sotti coleet dañ see ngërëmul Ahmadou Khadim kon mel na ci tënk tey jaal mboole seen fukki day rek ñett daje nañu fii ci jumaa ji ngir waajal màggalu édition 2024 am yéene tabbi ci bisimilah rahmaani rahim mu mat ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu dàkk ci ngërëmul Ahmadou Khadim dajeeg moom te it sëñ Muntaxa mii na fi gën a yàgg lool salaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi a asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla jullu ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di di murid di sëriñ Muntaxa di ko mu yàgg fi la tawér ba naal gi mën na fee ko sagom ba naal yéen naal moom lañ cee tegaatee sëñ am di moodu mbenn Fall yàlla na fi yàgg loolu tawér naal gi mën naa la maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na fee ko sagom ba naal yéen naal noonu lañ ci tegaatee sëñ Cheikh Alim Jenn yàlla na fi yàgg loolu te wér ba naal gi mu naanal maam Cheikh Issa Diène yàlla na ko yëg ak sagoom ba naal yeneen naam di santaat tamit liggéey bi nga xam ne sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am da koo teg ci loxo sëñ Xaafiya Buso muy muxaddamaatul xitma jëriñu liggéey bi di organisation tudd sëñ Fàllu Mbàkke Touba te liggéey bi nga xam ne euh, dañuy ñëw rek di ko ci jàppale tey nag le 21 juillet 2024 ñu ñëwoon fii ci mbooloom dëkk yi fasantikoo ak cellules yi nga xam ni ñoo ñoo ŋànk liggéey bi bokk ak muxaddamaatul xidma maanaam section Dakar ñëw nañu muy muxaddamaatul xidma euh, prop ñëw na muxaddamaatul xidma masalikul jinaan euh, ñëw na euh, muxaddamaatul xidma Louga section Louga ñëw na muxaddamaatul xidma xidmatul roodatu Dakar Thiès ñëw nañu mbooloom fukki daayira ak ñett yëpp ñëw nañ jóge ci dëkk yi fasantikoo yi màggal gi nag ñu xam ni màggalu nawet la te ku ne xam ne nawet ndox ndox day wàcc rëkk waaye ñu xam ne lii Moukhaddamatoul Khidma doon di def képp kuy murit waroon na la sëriñ bi booy jub si ci moom danga war a teewlu te teewlu xolo koy def du bët màggatu nawet la te te jumaa ji fi mu nekk ay karo la mbooloom rëg-rëg ak yuux yi bokk ci siyaar bi bu ñëwee nañ dal nañ nañ dox ndànk dal ndànk liñ fi indi muy siyaare barabam mu tedd bi fas ci sunu yéene ak sunu ajo sunu borom fajal ko ci barke borom Tuubaa mbooloom lu fi ajo ak ak lépp loo xam ne aajo na fi ak mbooloom niñ ko siqal muy ñi nga xam ne dañoo war a siyaar si lépp mate na ko su nekkee wàllu siyaar bi ci wàllu soxna yi tàggat nañu ay jëwriñu soxna yoo xam ne bu ñu ñëwee dinañ siyaar ci jàmm ak salaam su nekkee ci rang góor ñi tàggat nañu ay góor yoo xam ne bu ñu ñëwee dinañ siyaar ci jàmm ak salaam rek waaye ñu jóge ci quatorze régions yi ak ñu jóge ci diaspora bi ak partout dans le monde ku ci ñëw nga xam ne barab bi kat bu sàkkukaay la te barabu sàkkukaay ku fay ñëw da nga war a laabal sa bopp laabal sa xol la nga fay la nga fay wuti mu mën laa jëriñ ñu santaat bu baax liggéey nga xam ni sëñ Muntaxa da koo teg ci loxo mu xaddamaatul xidma mu xaddamaatul xidma bokk ko fukki daayira ak ñett moo waral tey réunion bii ñuy def le 21 juillet pour fas yéene nasu doon benn kàddu liggéey bi nga xam ne sëriñ bi da ko teg suñu loxo ñu defee ko ñu defee ko ñu ko sëriñ bi bëggee di ñaanal lépp di ñaanal ci képp koo xam ne dangay magal si rek ñu tàmbale ko bisimilah rahmaani rahiim yeggalee ko alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa